leen di libéré bàyyi leen ñu kër te Birame Souleye Diop ak Abbas Fall ñooñu yàggatul ñu bàyyi leen maître Moussa Sarr mi nga xam ne mooy avocat Guy Marius Sagna nee na kontaan na waaye nag amul benn infraction boo xam ne Guy Marius Sagna def na ko ba ñu waroon koo jël di ko làq jant bi te njiit réew mi di président Macky Sall il faut nag mu respecter li nga xam ne mooy liberté d'expression ak liberté de manifestation a kaay na na nooya nooy gi yi ñoo ngi nooyal mbir mi yéen a kaay gi de la ak enquête ak l'observateur nee na njiit ministre bi nga xam ne ni ki démb amal nañ ko amal na fa ab projet de loi boo xam ne jëm na ci ñu mën a li nga xam ne mooy élection locale yi yokkal maire yi ak ñi nga xam ne ñooy conseil municipaux yi seen mandat yi ndax élection locale yi dañu ko jàppoon ñaar fukki fan ñeent ci weeru mars atum 2021 kon date boobee mënuñu ko saa def moo tax njiitu réew mi ni ki démb daat nay adopté li nga xam ne mooy ab projet de loi boo xam ne maanaam moo koy dàq yéen a gi bi nga xam ne moom lañ loo xam ne jëm na ci wàllum politique ci dialogue national bi ni ki démb dajee nañ ci boo xam ne danañu ko mën a jàpp ngir amal élection locale yi waaye nag ak déggoo mujjuta am ci seen biir ndax ñi nga xam ne ñooy opposition bi ñoom li ñu bëgg mooy élection locale yi ñu amal ko ci atum 2021 ñi nga xam ne nag ñooy majorité bi nee nañu ñoom loolee munta nekk atum 2022 la ñuy organiser yi yéen a kaay gi nee na en li nga xam ne am na ba de Sall Macky Sall ci boppam moom nag mooy saisir ñi nga xam ne ñooy assemblée nationale su ko defee na Madiambal Diagne ndax Madiambal Diagne dafa def benn chronique wax ne violence yi nga xam ne moo amoon ci réew mi maanaam joolaa yi la loolee moo naqari bu nu waa sàmm bu APR loola nee na jamono ji sax Madiambal Diagne maanaam moom xaymawul wala nattul njuumteeka musibaaka tooxi doona yi nga xam ne teg na ko réewum Sénégal yéen a gi du source a nee na lu toll ci fukk ak juróom benn ci ay oto huit huit yoo xamante ni gis nañu ko waa PDS yore ko yéen a kaay gi nag xëy na sampablaaj nee oto yooyu nag su dee Karim Wade moo ko mooma bu Sénégal suñu koo teg loxo ndax Karim Wade doomu Abdoulaye Wade bi dafa ameel état bu Sénégal lu toll ci cent trente huit milliards kon nag bu ñu fi gisee ay oto yoo xamante ne ay huit huit yu bees tàq la toll ci fukk ak juróom-benn est-ce que état munu koo teg loxo maître Moussa Sarr di ab avocat nee na daal en tout cas oto yooyee su dee nag ci turu Karim Wade la nekk état bu Sénégal mën na koo teg loxo waaye nag bu dee oto yi daal maanaam ci turu PDS ko mën teg loxo yéen a kaay gi di ñu fekk fan ak Farba Senghor nee na ki nga xam ne mooy Karim Wade ay mbiram jeex na ci lu jëm ci wàllum politique noppale ñu fekk fa Yankhoba Diattara nee na réew mi bu Idrissa Seck ñoom nag dañoo engagé wu daal maanaam bëgg gu gunge Macky Sall ba atum 2035 yéen a kaay gi de la Tribune nee na parti bii nga xam ne mooy parti réew mi en tout cas ñi nga xam ne ñoo say tekk seen ndombal tànk di démissionné bëri na loola yéen a kaay gi de réew mi quotidien nee na nag ñi nga xam ne ay nappkat lañ di faatu ci biir géej gi bëri nañ lool ba ñu sukkandikoo ci Adama Faye mi nga xam ne mooy directeur adjoint de la protection nee na atum 2021 bi lu toll si ñetti ci ay weer toll si ñeen ak ñett ay nappkat yoo xam ne faatu nañu ci géej liggéey yéen kaay gi di la Soleil nee na lu jëm ci wàllum artisanat njiitu réew di président Macky Sall dina taxawal ab projet spécial boo xam ne pour ndaw ñi la jamono ji président Macky Sall ngi diw bër xale yi yéen kaay gi di réew mi quotidien les jeunes de l'économie xëy na wax ci hôtel bii nga xam ne mooy King Fahd Palace ak jafe yi nga xam ne moom la hôtel bi lambol ndax ay client na leen rey licenciement yoo xam ne jéggi na dayoo journal téeméer ci ay client daanañu ko am waaye nag jamono ji daal jamono ji tembe ci hôtel King Fahd Palace lu toll ci ñaar fukk ci ay client rek la ñu am te bu njëkk doon nañu am lu toll ci sept cent clients moom Pierre Mbaw daan wax ne ñu bëri ji licencié nañ leen yéen a kaay gi de sat xëy duñu xibaar naan ñu club bii de Real Madrid ñoo ngi cay jafe-jafe waaye nag soo muy tuulee daal delluwaat ci boobale club ndax ñoom ñaan ñëpp maanaam bëgg nañu ko société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen seen revue de presse